alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika muhammad wa alaa aalihi wa ashaabihi ajmaiin amma baad bokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem mbokki jullit yi ñu xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo waral tuub moo santaane ñu tuub sant ko bépp jullit wax ne wa tuubu ila allahi jamian ayuha la laallakum tuflixuun nee na mboolem yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm yàlla tuub leen dellu ci seen boroom ndax ngeen mën a texe moom sunu boroom tabaraka wa taala mu waxaat ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuuxa yéen ñi gëm yàlla tuub leen dellu ci seen boroom tuub koo xam ne gu sell la su ngeen ko defee seen boroom dana far seeni ñaawteef maanaam jéggal leen seeni bakkaar waaye dana leen tàbbal ay ajjana itam boroom bi tabaraka wa taala waxaat ne na ngeen di jéggulu seen boroom te di ko tuubal fu ngeen toll yonent bi sallallahu alayhi wa alihi itam soññee na ci loolu ñëw na ci ay xadis yu wér mu ne yéen nit ñi dee leen tuub di dellu ci seen boroom moom yonent bi alayhi salaatu mooy wax de mu ne man dey bis bu nekk danaa jéggalul saa lu mat téeméeri yoon kon kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne jéggal nañ ko bakkaaram yu jëkk ak yu mujj teewul muy jéggalu boroomam lu toll noonu kon keneen ku dul moom taxul ñuy wax alxuraan ak sunna li ci ñëw ci ay tex yoo xam ne dafay santaane ñuy tuub di dellu ci yàlla loola bari na lool mu doon loo xam ne lu war la bépp jullit muy jullit bu góor ak jullit bu jigéen buy tuubit tuub mboolem bàkkaar yi bañ cee settee benn bàkkaar muy bàkkaar bu mag wala bàkkaar bu ndaw tuub nag buñ ko waxee mooy nit ka bàyyi bàkkaar ba mu doon def moo xam bàkkaar boobu dafa am luñ ko digaloon mu lànk bañ koo def walla daa am luñ nekkoon bul ko def mu dem di ko def lu mu ci mën a doon bàkkaar la nit ka tuub nag mooy loole ko gaaroon te doon bàkkaar mu summi ko ca ba set ca wecc buddi ko ba duutu laal bàkkaar boobu bépp jëf nag boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf ko santaane du ñàkk ne dafay am ay charte yoo xam ne mooy daje jëf jooje doon a a wér a mën a wér loolu moo tax tuub ci boppam dafa am ay charte yoo xam ne su dajewul moom tuub gi ci boppam itam du mën a wér charte yooyu nag ngir ñu xam ko faw ñu xam ne jëmmi bàkkaar bi di gaar nit ki dafa am ñaari xaaj am na bàkkaar boo xam ne digganteem ak boroomam rekk la waaye doomu aadama amu ca benn xaq doomu aadama amu benn xaq bàkkaar bi nga xam ne yàlla dafa ne damaa araamal lii nit ka dem jalgati loola def ko te lorul benn doomu aadama kooka digganteem ak boroomam la sa boroom moo ne bul naan sàngara bu nit ko sàgganee ba dem naan sàngara kooka digganteem ak boroomam la sa boroom moo ne jullil wooral nga sàggan ba bañ a julli bañ a woor loola sa digganteeg sa borom la waaye beneen àqu doomu aadama nekku ca bépp bàkkaar boo xam ne dafa dox diggante nit ki ak boroomam te àqi doomu aadama ajawu ca kooku am na juróomi chart ngir tuubam nga ñi door koo nangu am na juróomi chart ngir ñi door a nangu tuub ga chart ba ci jëkk mooy tuub gën a sell na yàlla rekk tax waaye kat du wér nit que ne maa ngi def bàkkaar bi ba mu yàgg fekk la tax mu ne da koy bàyyi mooy dafa ragal ne bu ko bàyyi wut sanction mën naa tege ci kawam mën nañ koo mën nañ koo mbugal maanaam mën na mën na caa dugg kaso mën nañ ko caa dóor mën nañ caa fab alalam su loola taxee loola du ak tuub wala mu ne lii su ma ko bàyyiwul du ma am daraja fa nit ña wala alal ja ma fa war a am du ma ko fa am kon naa ko bàyyi su boobaa googu tuub yàlla taxut yàlla du nangu tuub gu mel noonu kon li ci jëkk mooy tuub gën a sell ne yàlla kese kese kese tax ba ca des muy ñaareel ba moo di bàyyi bàkkaar ba mu doon def su fekkee lum daan def te waru koo def la mu ne lii banaa ko sama digganteeg yàlla su fekkee luñ ko doon sant la mu mënoon koo def te defu ko mu dogu ne lii dama koy tàmbali di ko def su ko defee kooku lañuy ñuy tudde bàyyi bàkkaar ba ba set ca wecc moo xam da doon def lu xaraam wala dafa bàyyi woon loo xam ne lu war la ñetteel ba mooy mu rëccu bàkkaaram boobee nga xam ne doon na ko def mooy mu yëg naqaru xol lool ci bànneex ci bàkkaar ba mu doon def di gaat nga di wax ci xolam naan ak a neexoon jaaruma woon sax ci loolu mu naqari ko saa bu ko fàttalikoo mu metti ko kon rëccu googu munu cee ñàkk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér mu ne at tawbatu an nadamu tawba réccu ci boppam ak tuub la kon kooku charte la boo xam ne mënta ñàkk ci charte yi mooy mu réccu ko waaye def bàkkaar boo xam ne kat nit ka nee na tuub na waaye teewul saa bu ko fàttali ko mën na caa mel ne ku ca bég wala mu di ko waxtaane sax ci aw nit di leen ko yëgal bu boobaa kooka tuubut ñeenteel ba moo di mu dogu ne bii bàkkaar moom jamono yi muy tuub jël na engagement dogu na ne duuti ca dellooti mukk bana ko boole ko nag akuk dëgëru xol ngoo xam ne lam fas mooy boobu bàkkaar fasutu caa yéene dellu sartu juróomeel ba moo di jamono yi muy tuub na fekk mu doon waxtu nangu tuub na fekk mu nekk waxtu woo xam ne dañu cey nangu tuub ga ndax tuub kat mbokki jullit yi dafa am waxtu woo xam ne bu jotee dañuy ub bunt ba nit ki dana dem ba mu yàgg buntub tuubam ñi tuub ub ko moo tax nit ki war di gaaw a tuub bokk na ci yi tax yi koy waral mooy nit ki dem na ba xam ne mi ngi ci sukuraat léegi dee dikk na xam na ne moom àdduna ji moom jeexal na fi mu toog foofa di tuub bàkkaar yi nga xam ne weesu woon na googu tuub kenn du ko nangu moo tax borom bi tabaraka taala moo ko waxal boppam nee na walaysat altawbatu liladina yacmaluuna alsayiat xata ida xadara axadahum almawtu qaala inni tubtu alan wala alladina yamutuuna wahum kuffar nee na ñi nga xam ne dañuy xaar ba dee dikk nekk ca sukura daal dina léegi de man yow yàlla tuub naa borom bi nee na ñooñu amuñu tuub moo ki faatu yóbbaale kéefar ñooyam kooku itam amul tuub kon faaw mu gaawe tuub moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis inna allaha yaqbalu tawbata al abdi ma lam yugargir yàlla day nangu tuubu jaam bi li feeg nekkul ci sukuraat li feeg nekkul ci sukuraat nga xam ne dem na ba sës ba dara desetu ko léegi ci sukuraat nag mën naa doon loo xam ne feebar ko waral mën naa nekk situation boo xam ne it xam na ne moom nekkul ci sukuraat sax waaye xam na ne dundatul moom ki nekk ci avion ba mu yàgg mu wóor ko ne avion baa ngi daanu di dem kooko nekkul ci waaye lam jàpp mooy moom faatu dikk na su boobaa lu mu tuubul woon ba booba mënatu koo tuub ci diggante boobu kon mbokki jullit yi gaawe tuub lu munta ñàkk la beneen bi ci des ci màndarga yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggee na ko la moo di balaa adduna tukki maanaam am na bis boo xam ne day ñëw am màndarga mu doy waar moo xam ne day feeñ nit ñi teg ci seen bët mooy jant ba nga miinoon fa mu daan fenke ca penku bu fekkee fii nu nekk la mu fenk jëm soow bis day ñëw mu fenke fa daan soo muy fenke ca soowu dox jëm penku bis ñu gisee loola ñu xam ne mbirum àdduna moom jeex na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jekki ba gis loola jant bi fenke ca soow ba nga doon ne tuub naa tuub googu kenn du ko nangu neke noonu it tuub goo xam ne nit ki dafa dem ba di def ak mooy yàlla ba amatul kàttanu def mooy yàlla googu mu door a tuub dundam gépp daal ci xool lu xaraam la ko jeexaloon wala ci déglu xaraam déglu lu xaraam wala seqi ay jéegoom di dem di defi xaraam ci la ko doon jeexal dem ba néew kàttan dikkal ko ba mënatu ko mu door ne tuub naa kooku suñu borom du ko nangu da doon xool lu xaraam ba mu yàgg mu silmaxa ne yàlla tuub naa duutuma xool lu yàlla du ko nangu ndax mënatu ko da ko doon déglu dem na ba mu yàgg mu tëx mënatu la dégg mu ne yàlla tuub naa li ma daan déglu googa tuub ko nangu ndax defu ko ba mu ko mënee da daan seqi jéegoom di dem ba paralysé na mënatu la dox léegi mu ne duutuma dem ca baar ba yàlla maa ngi koy tuub fekk daa mënatu la dem su boobaa kooka tuub di su ko nangu kon nit ki day tuub fekk mi ngi ànd ak kattanam borom bi tabaraka wa taala door koo jéggal kon lii lépp dafa nuy soññi mbokki jullit yi ci ne jullit bi dafa war a gaaw tuub loolu mooy li dox diggante jaam bi ak boroomam bu fekkee ne nag bàkkaar bi mu def dafa nekk digganteem ak mbokkum jullitam wala mbokkum doomu aadama am sax parce que jéggi na rek digganteem ak jullit tooñ na doomu aadama moo xam ci alalam la moo xam ci ab deram la mboolem ñi ngay jëflenteel la ko tàmbalee ci soxna sa ba ca ka nga dëkkal ca kër gi gam ak ñi nga dëkkal ci koñ ba muy dëkkandoo ya ka nga bokkal fooy liggéeya ñi ngay seqal ay bor ay yëf yu mel noonu yoreel nga ci nit benn dërëm boo xam ne xam nga ne bii léewu la nga jël ko ci alalam wala nga wax nga ci deram genn kàddu goo xam ne gu ñaaw la kooko yoreel nga ko bàkkaar bu fekkee bàkkaar bi dafa dox diggante jaam bi ak beneenub jaam kooku juróom-benni charte la am sun boroom door ko nangu juróom-benni charte yooyu mooy juróom yi ma tuddoon ak bam cay dolli mooy lim yoreel jaambur bi muy ak xam mu fay ko ko su fekkee alal la mu dem delloo ko ko lii day dama ko jëloon ci sa alal te yëgoo ko mi ngi nii jël ko su fekkee kooka dundatul mu seet ña ko doon mu jox leen ko ne leen lii diwa ko moom su fekkee lu mu ko waxoon la lu ñaaw teg ko ci deram ci ay kàddu moo xam da koo jëw moo xam da koo xas moo xam dafa yàqub deram ci nit ñi moo xam dafa bind ci moom lu yàqub der wala mu wax ko ci làmmiñam mu dem ba ca moom ne ko jéggal ma maa la waxoon nangam su fook fekkee kooku génn na àdduna boroom xam-xam yi nee nañ la koy mën a far mooy fu mu jéggalule boppam jéggalul waa jooje moom itam ay bàkkaaram faye ko lu ñaaw la mu waxoon ci moom loolu kon mbokk jullit mooy tuub ak i chartam am nag ay masala yu bare bari nag yoo xam ne dafa aju ci wàllu tuub ngir mu mën a sell ngir mu mën a baax ngir ñi mën koo defar ba mu tegu ci yoon masala yooyu ba ci jëkk moo di ne léeg-léeg jullit bi dana def bàkkaar tuub ko dem ba mu yàgg mu tàbbiwaat ca même bàkkaar bi mu tuuboon su booba ñi xam ne loolu yàqul tuubam gu jëkk ga li am solo mooy saa buy tuub sarti tuub yi na daje ci moom saa bu ko baamtuwaatee bay tuubaat sarti yiñ tuddoon yépp na daje ci moom natt mën na ko ñëwal mu tàbbiwaat ci waaye fekk na moom jëloon na engagement doogu woon na ne duutu ca dellu waaye natt ñëw na mu delluwaat ci nay continuer di tuub rek ñaareel ba moo di léeg-léeg nit ki bàkkaar yu bari day tege ci loosam boole ay mooy yàlla yu bari léeg-léeg mu tuub yenn yi mu des yenn yi boroom xam-xam yi nee nañ tuub yenn bàkkaar loola dana wér ca la nga tuub nit a ngi daal koo xam ne du julli waaye joxewul asaka te am na alal mu dem ba mu yàgg mu tuub di julli su boobaa yàlla dana ko nangul ak tuubam ci julli ga muy julli waaye nag bàkkaar bu mag ba des na mooy asaka jëmtul joxe looloo tam lu mën a nekk la ñetteel bi moo di xaraam na daganul ci ab jullit muy jàkkaarlook mbokkum jullitam di wax ci moom wax ju ñaaw ci sababu bàkkaar bu mu defoon te fekk tuub na ko ki xas tuub bàkkaar jeexal na amatul bàkkaar bi attaibu min addanbi kaman la danba lahu ki def bàkkaar tuub ko mook ku mus ta def bàkkaar boobu ñooyam luñ bindoon fi béréb la ko ba mu set attawbatu tajubbu ma qablaha tuub dafay dajji dafay buddi buutub bàkkaar bi ko jiitu woon kon du jaadu ci nit ki mu def bàkkaar nit xam loolu ci dundam mu paase mu tuub ko mu di ko ko wax wala muy toog fi benn béréb sax di ko fa yëgle di ko fa wax su ko defee am na ci moom bàkkaar boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala rek moo xam bàkkaar boobu nu mu toll bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne waa jooju rek moo ko ko mën a jéggal moom mu door a mu door a dañ ñeenteel ba moo di du jaadu ci ab jullit mu yaakaar ne moom moom daal mucc na ci bàkkaar fi mu nekk loolu moom képp kum gaar xabal ne seytaane ma nga lay jekku dem ba jàpp ne yow li nga jotagoon a def ci lu baax daal fi mu nekk daal yow weesu nga daal di tuub walla weesu nga daal di di am bàkkaar loolu njuumte lu rëy la loo xam ne pexem seytaane la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu bnu aadam mboolem doomu aadama yépp xataa'uun ñoom ñëpp dañuy juum wa xayrul xataa'ina tawaaboon ñi gën ci juumkat yi nee na mooy ñi gën ci bàkkaarukat yi mooy tuubkat yi kon tuub moom cadre la boo xam ne ñépp ngi ci biir kenn mucc ci ndax ñépp am bàkkaar bàkkaar yi nag mën nañoo ëppante mën nañoo wuute waaye nag bàkkaar bi moom ginnaaw ci doomu aadama yi nga bokk kon kullum nu aadama xataa'un kon da dangay da juróomeel ba moo di mbokk jullit wattu la xeet bàkkaar bàkkaar dëgg la dañ naan bàkkaar bu mag ak bu ndaw waaye bul bul jàpp ne bàkkaar bu ndaw am na yow lépp luñ tere jàppal ne baaxut lépp luñ digle jàppal ne lu baax la def ca loo ca man liñ tere nag bàyyi lépp comme niñ koy waxe jaan ji ju mag la ak ju ndaw ak dana màtteeg du màtte bul ko jox sa loxo yow bàkkaar benn baaxu ci di aw yoon la woo xam ne wu jëm sawara la te même bu ñu jàppoon ne bàkkaar bu ndaw dafa am nit ki xeeb ko bu teyee mu def bàkkaar bu ndaw boo léegee mu defaat bàkkaar bu ndaw boo léegee mu defaat bu ndaw yu ndaw yooyu boo leen boolee bàkkaar bu mag lay mujj nekk moo tax waxkat ba daf ne laa taxqiranna saxiratan inna aljibala min alxasa mu ne bul xeeb mukk bàkkaar bu tuuti montagne yu mag yi ngay séen xamal ne ay ay doj yu ndaw ñoom lañ ñoo dajaloo rek ñoo dajaloo ba composé ko ba mu nekk montagne boo xoolee immeuble yi ngay seen pëndaxub ciment la woon boo xam ne sax matul matul benn fepp pëndaxub ciment lañ daje ba mu nekk immeuble boo xam ne da koy séen mu nekk R plus 10 wala lu ëpp loolu kon lu tuuti ak lu tuuti boo ko boolee rek lu rëy daal di judd kon bul xeeb bàkkaar bu ndaw juróom-benneel bi moo di da jagan daganut te xaraam na ci ab jullit muy def bàkkaar yéene ne dama ko bëgg a def suma noppee tuub loolu dafa xaraam juuyoo na ak li nga xam ne lu war nekk ci charti tuub la ndax loolu bokk na ci yombal nit ki mu continuer ci bàkkaaram naa ko def rek su ma noppee tuub loolu lépp pexem seytaane la moo xam ne mooy jaxase nit ñi pour tàbbal leen ci ay bàkkaar te nit ki nga xam ne mooy wax loolu nan naa ko def su noppee tuub kooku dafa mel ni ak dundam ci loxoom la nekk xamul ne dund gi dafa am keneen kum nekk ci loxoom koo xam ne moo yor programme am te waxu la dara sa waxtu woow yi nga xam ne bu jotee nga wuy ji sa boroom nëbb na la ko xamuloo kañ la xamuloo fan la xamuloo it nan la kañ la mooy tey la am suba am ñaata minute moo ci des xamoo ko fan lay doon ban dëkk la fan la ci kaw suuf bu dee ci réew mi ak bitim réew fu mën xamoo ko nan lay amee ndax day tëdd ci blalam rek faatu ndax ci accident lay faatu lu koy rey yàlla rek a xam yooyu yépp nag comme ne ci sa kanam ump la waroo am jotug naan xaaral ma def bakkaar bi su ma noppee tuub xamoo da nga noppeem nit ñaata nit ñoo yor bu teelub sàngari di naan far faatu fekk leen fa ñaata nit ñoo seq seeni jéego di dem wala ñu yor seen oto di ko dawal jëm ci ak mooy yàlla ma malakul mawti dajeeg ñoom ci yoon wi àgguñu ca mooy yàlla googee fekk lu bon lañu doon doon kon mbokkum jullit bul ne mukk dama bëgg a def bàkkaar bi su ma noppee tuub ndax xamoo doge ca noppeem déet am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy def bàkkaar ba noppi di ko wax kooku moom lañ tudde almujaahara biral bàkkaar def gi rek dafa doy sëkk wëlbatiku di ko wax nag beneen bàkkaar laati ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne sama xeet wépp daal am nañ jàmm am nañ jàmm ba des koo xam ne day def bàkkaar ba noppi di ko wax mu ne moom yonente bay wax mu ne biral bàkkaar ak yéene ko wax ko ba ñu yëg ko mooy nit ki day def lu ñaaw ca guddi ga xëy ci suba gi yàlla suturaal ko kenn xamu ko mu wéet ak àndandoom wala xaritam ne ko yow diw sàngam man day biig def naa nangam ak nangam mu ne kooku yàlla da ko fanaane suturaal moom mu xëy yendoo toraxal boppam kon kooku bàkkaar la bu mag ndax biral bàkkaar ak yéene ko ak yëg ne mi ngi am dafa am propagande bu ci nekk boo xam ne mën naa dugal keneen ca bàkkaar ya léeg-léeg nga gis yu bon yoo xam ne ni koy publicité ak di ko wane ak nit ñi ñuy génnee ñi koy wane ak lu nuru personnalité bu bu ñàkk solo ba nga xam ne moom lañ cay wane loola day xëcc ñeneen nit di leen dugal ca bakkaar booba lu mel noonu moo tax nit ñi nga xam ne dañoo feebal ci wàllu xel seeni xel woyof lool ñàkk bopp itam lool lu jóg yóbbaale leen ñu mel noonu buñ seetaane lu mel noonu wala ñu dégg ko ci keneen koo xam ne jàppare ne kii ku am solo la dañu daal di jóg di ko roy ca loola su ko defee kooku bàkkaar bi yematul ci doon bàkkaar boo xam ne moom def na ko waaye publicité bi mu koy publicité ñeneen ñi di ko jëf ma nga cay jël wàlla moom itam ca bàkkaar ya di dool dolli koy bàkkaar kon bàkkaar doonut loo xam ne dees koy def ba noppi di ko waxtaane juróom-ñetteel ba am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy def ay bàkkaar yu bari bare baree bari ba àgg ci mu jàpp ne moom mii daal àgg na foo xam ne alku na jaratul muy tuub defe na ne daal bàkkaaram àgg na foo xam ne bu tuubee itam te su ko nangu su ko defee mu daal yi naagu ne yërmande yàlla moom mënatul a jëm si ci moom ndax lu bari lim def ci bàkkaar su ko defee ku mel noonu ñàkk xam moo ko waral sun borom tabaraka wa mooy borom yërmande ju yaatu ji nee na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxal jaam ñi ne leen yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah waxal sama jaam ñi ne leen ñoom ñi nga xam ne ñoo def bakkaar yu bari yi buñ naagu ci yërmaandey sunu borom tabaraka wa taala maanaam buñ jàpp ne yàlla du leen yërëm inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim amul benn bàkkaar boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala du ko jéggale te fekk boroom daf koo tuub kon loolu dafay soññee ci tuub su fekkee daa faatu nag yóbbaale ay bàkkaar it borom bi tabaraka wa taala mën naa jéggale bàkkaar yépp ba mu des benn muy ba bàkkaaru bokkaale bokkaale moom ku ko faatuwaale kenn du ko jéggal sawara la jëm wala yaasu billah yàlla ñu ci yàlla musal moo tax inna yépp ci ku ko faatuwaale ba mu des ku faatuwaale bokkaale kooku du ko jéggal waaye nag bu dee kii dund te faatagul nag tuub bépp bàkkaar bu tuub dañ ko koy jéggal moo xam bokkaale la moo xam kéefër la moo xam rey nit la moo xam lu mu mën a doon ci àdduna su ko tuubee bañ koo defati borom bi tabaraka wa taala jéggal ko ko borom bi nee na wala tey asoo min bu leen naagu ci yërmande yàlla nee na ñi nga xam ne ñooy naagu ci yërmande yàlla dem ba defe ne yàlla mënatu leen a yërëm ñooña ñooy yéefar yi maanaam duñ ay jullit sax foofu borom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo rey bakkan boo xam ne yàlla da koo xaraamal wala ñu njaaloo ñooñu mbugal mu rëy moo leen di xaar ba mu des nag koo xam ne dafa tuub maanaam ki tuub te rafetal tuub ga ak bakkaar ba mu def lu mu rëy rëy rëy rëy nee na yàlla dafay soppi seen ñaawteef ya mu nekk ay tuyaaba loolu dara gën ko rëy ci ci njéggal kooku mooy martaba bi gën a kawe ci martabab njéggal ndax doy na rek ñu faral la say bàkkaar waaye nag bàkkaar bi nga defoon ñu wëlbati ko soppi ko mu nekk ay xasanaat muy ay tuyaaba ñu teg ci sa balance mu diis kooka moom lu rëy la yërmaande rek moo mën loolu moo tax mu ne fa ulaayika yubaddilu llahu sayiatihim xasanaat yàlla day soppi seen ñaawteef yi ñu doon ay ñu tegal leen ko ci seeni balance mu soppi ko xéewal moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne su fekkoon ne yéen da ngeen a dem ba defatu leen ay bàkkaar kon yàlla dana bind ñeneen nit ñoo xam ne dañuy ñëw ci kaw suuf def ay bàkkaar di ko jéggalu mu di leen jéggal kon nga xam ne istighfar ci boppam dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne nit ki def bàkkaar di ko def yàlla di ko jéggal loolu daa bokk ci programme bi kon nit ki du def bàkkaar daa di ne naagu naa kenn dutuma jéggal kay bàkkaar bu mu def na ko tuub te fexe ba sarti tuub ya daje ca su ca mënee dogg bañ koo defati ba faw loola mooy tawfiix ju mag ja waaye su juumoon ba tàbbiwaat ca it mu defaat ko rek waaye tuubaat rek waaye bu mu naa ko ki ma tuddoon mooy ki dem ba yaakaar ne moom jeex yërëm nañ ko moom ama yërmaande yàlla daal yaatu na yaatu goo xam ne tax na lu ko neex def bu dikkee daal ma nga ca mooy yàlla ya ma ngay sàcc ma ngay lekk alali jàmbur ma ngay njaaloo ma ngay naan sàngara bu dee jigéen ma ngay def yaramu neen ca mbedd ma ma ngay taxawaalu ma ngay def yiñ ko santul soo ko laayee biir mu ne la yërmande yàlla yaatu na yërmande yàlla yaatu na kooku mooy safaanu ki jàlloon léegi dëgg la yërmande yàlla yaatu na lool yaatu ko foo ko takk sax weesu na ko waaye nag borom bi tabaraka wa koo teg ci programme sànniwu ko ci mbedd mi yàlla nee na nabbi ibaad yi xibaaral sama jaam yépp yonent bi lay waxal anni ana alxafuru rahim wax leen ñoom ñépp ne leen man mii may jéggalaa kon bi jéggalkat bi maay boroom yërmaande ji wa anna adaabi huwa aladabu al alim waxaale leen it nag ci sama mbugal mbugal mu tar la sama mbugal mooy mbugal mu tar ma fi muy waxee ne man maay jéggalekat bi bi ci benn aaya bi la ne man naay mbugalekat bi mbugal mu tar mi kon ñaar yooyu yépp dañoo àndandoo sunu borom tabaraka wa taala meloo ko kon yow mi wax ne sa borom tabaraka wa taala borom yërmande la ba nga jàpp ne lu la neex nga def bul fàtte ne mbugalam itam mooy mbugal mi gën a tar ci mbugal yi borom bi tabaraka wa taala waxaat ne wa rahmati wasiat kulla shay nee na sama yërmande yaatu na ba matale na lépp waaye fa sa aktubuha lilladina yattaquun waaye yërmaane jooju rek ñi ma koy bindal mooy ñi ma ragal kon ñi ragal yàlla nga xam ne suñ defee bàkkaar tuub wala suñ ma bañ def bàkkaar mooy la gën nga xam ne boole nañ imaan ak taqwa daal gëm nañ yàlla boole ko ak ragal ko nee na ñooñu lay bindal sama yërmaande ji kon yërmaande ji bu la seytaane naxe ci wetug yaatug yërmaande yi suñ borom tabaraka wa taala dëgg la yërmaandeem yaatu na lool waaye nag da koo teg ci programme boo xam ne mooy ki ko ragal kooku mooy yeeyoo yërmande jooju ki nga xam ne dafa jaamaarloog boroomam di ko mooy guddi ak bëccëg lànk bañ a tuub kooku yeyoowut lu torne tarfatul ay ni ci yërmande yi sunu borom tabaraka wa taala kooku mbugal ma borom bi tabaraka wa taala dafa bëgg jullit bi mu boole ñaari mbir mooy ragal sa borom tabaraka wa taala ak yaakaar ko ñaari laaf lañ yoo xam ne menn laaf mu ci manqué rek nit ki ak doxam jëm ci jaamu yàlla ak doxam jëm ci ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala day manqué ñaari laaf yooyu mooy laafum ragal xam saa boo xalaatee li nga def ci ay bàkkaar rek da tiit ba ragal ne yow mii yàlla nañ la jégal say bàkkaar waaye saa boo xalaatee yërmaandey sa borom tabaraka wa taala am yaakaar ci sa borom tabaraka kon ñaari yooyu bu ci manqué rek sa dox du équilibre faaw nga bàyyi xel ragal sa borom tabaraka wa taala waaye faaw nga bàyyi xel it yaakaar yërmande yi sunu borom tabaraka wa taala moo tax boroom bi bi muy melal jaamam yu baax yi ba di leen tag daf ne tatajaafa junubuhum anil madaaji'i nee na ñooñu ñooy ñi tëdd ba guddi ñi jóg bàyyi fa seen lal yu nooye di jóg di julli ngir seen borom yad'uuna rabbahum ñuy jaamu seen boroom boole ko ak di ko ñaan xawfan wa tamaan ñu boole ragal ak yaakaar xemmem la sunu borom tabaraka ragal mbugalam waaye xemmem ajjanaam ñaar yooyu ñoo tax mu ne wa mimma razaqnaahum yunfiquun boole koog lañ am lum tuuti tuuti ñi di ca joxe fi sabilillah kon mbokki jullit yi loolu mooy tuub mooy charte tuub mooy masala yi aju ci tuub allahumma inna nasaluk an tajcalana min altawabin almustaghfirin allahuma inna nasaluka mujibaati raxmatik wa azaima magfiratik walsalaamata min kulli ism walganimata min kulli bir walfawza biljanna wannajaata min annar wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain